mbokk déglukat yi dal nag jàmm ca diwaanu Ndar tëj nañu ñetteeli mission médicale espagnole bi nga xam ne ci diiru benn ay bés mu nga woon ca dispensaire bu goxu mbàcc ca Langue de Barbarie bu ñu dee xayma nag toll na ci juróom-ñetti téeméer ak juróom fukki patient yoo xam ne saytu nañu seen wérgu yaram amit juróom benn fukki nit yoo xam ne opéré nañ leen jagleel leen ay garab yoo xam ne fay ñu ci dara ñu nemmeeku fa nag ay feebar yu bëri gannaaw ba ñu saytoo seen yaram loolee di médical yoo xam ne ki ko sabab mooy Babacar gay di responsable politique nekk it doomu diwaan boobile ñu teewlu ko ci micro Yves Tendeng. waaw mission bi gannaaw euh, sant nañ ci yàlla bu baax a baax moom mi nga xamante ni kàttanal nañu dooleel ñu. ba association bi nga xam ni mooy Elastic Family nekk suñu première collaboration ak ñoom am ci lu am solo ñoom ñëpp ñu am détermination am jàmbarte lool ñu def fi une semaine opéré lu mat juróom benn fukki nit ak juróom consulté lu ëpp juróom-ñetti téeméeri nit defal ay pikiir yoo xamante ni ñokket laa ko tuddee lu ëpp juróom benn fukki nit loolu yëpp nag am si jàmm ak salaam nekkoon nag euh, mbir moo xamante ni amoon na solo ndax population bi ñëw nañu gën jaar rafeti ñëw muy waa Langue de Barbarie muy ñeneen ñi dëkk si yeneen gox yi ci Ndar est-ce que dellu si ñan la affaire bi waaw ñi mu concerné donte ñun duñu ay euh, waa kër docteur mais dañu yombalal mbir yi rek gëm naa ni feebaru yax bare woon nañu trop ci lu ñu faj lu jëm ci wàllu pay amoon na ci lu jël ci wàllu kuujar kuujar bu mu mën doon ci yaram am na yu bare bare yuñ ci opere ak yeneen xeetu jàngoro yoo xamante ni xëy na euh, duñ ko wax dañuy bàyyi noonu rek mu sedd mais lépp nag am na ci jàmm ak salaam di wax rek ne sant nañu sant leen ñoom parce que sonnoon nañu trop ndax bus bu nekk ay téeméeri téeméeri nit doon nañu ñëw toog si yar ci teggin ñu xool leen Euh, dalal seen xel may leen garab ñu fàttali ni ñoom indi nañu lu tolloog juróom-ñaar téeméeri kilo ay garab daanaka garab yooyu mën naa ni li ci des matatul ñaar fukki kilo lépp delluwaat na ci askan bi mel na ko faj bi dafay continuer. waaw faj bi day continuer ndax euh, si weeru mai bi am na juróomi médecin espagnol yuy ñëw get Ndar ñu xool ci wàllu yàq ñooñu nag dañuy ñëw pour def opération gën a xuus ci mbir yi mois de septembre docteur Carlos ñëpp xam ko xam xarañteem dina dellu siwaat euh, goxu mbaaj fajaat xale yi ndax moom nag mooy spécialiste mbirum xale yi. collectif liggéeykat yi yëngu ci wàllu santé ak action sociale ci alxemes gi dinañu amal grève générale ko journée sans ñoom nag li ñuy nakarlu moo di taxawaayu kilifa yi ci mbirum faatuk astu soxna di ci nakarlu nag ni ñu leen di taylee rawatina ci réseau sociaux yi ak xeetu ñawteef bu ne ñu jël ko teg ci seen dodd syndicat yi nag bëgg ñu amal enquête boo xam ne amul par parparloo ci mbir moomule nee nañu nag dàkku ñu wëyal seen xeex lépp rek dina aju ci nañuy càmbare dossier bi ak it seeni revendication mbokk déglukat yi fii la yem ak yéen ñu yendoog jàmm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 Bonjour chers auditeurs, clôture à Saint-Louis de la troisième médicale espagnole qui a séjourné pendant une semaine au niveau du dispensaire de Gorumbach sur la langue de Barbarie. Au total, plus de 850 patients ont pu être consultés et plus de 60 personnes opérées avec un lot important de médicaments distribués gratuitement. Plusieurs pathologies ont été diagnostiquées lors de ces journées de consultation médicale initiées par Babacar Gaye, responsable politique et natif la localité. Il s'explique au micro de euh, nous rendons grâce à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis d'entrer dans cette mission-ci et d'en sortir très satisfait. Satisfait dans la mesure où, au bout d'une semaine, moins de dix jours, euh, les partenaires espagnols de l'association Elastic Family ont abattu un travail extraordinaire qui s'est manifesté par la consultation de plus de 850 patients des opérations réussies de plus de 60 personnes, des injections qu'ils ont faites pour soulager les patients venus de la langue de Barbarie et d'ailleurs. Cette mission-ci, la troisième édition, a été un très gros succès et c'est un sentiment de satisfaction. Est-ce que vous êtes revenu sur les pathologies qui ont été... Euh, euh principalement, c'est la chirurgie pour adultes ils ont eu à traiter des tumeurs superficielles, des malformations génitales et toutes les formes des hernies, parce que voilà, c'est une maladie qui est très présente dans notre zone, mais également de la médecine générale. Hein. Ils ont également consulté beaucoup, beaucoup de personnes qui souffraient un peu de maladies articulaires, la traumatologie et tout ce qui va avec. Ils ont eu également à donner des médicaments à toutes les personnes consultées. Donc, euh, c'était de la chirurgie pour adultes. Et les consultations vont se poursuivre parce que nous attendons courant mai l'arrivée de cinq médecins espagnols spécialisés en traumatologie. Cette fois-ci, le théâtre des opérations aura lieu au dispensaire de Guetnard. Un peu plus tard, il y aura le retour du docteur Carlos Bardagi, qui est un médecin reconnu mondialement qui traitera de la chirurgie pédiatrique. Le collectif des travailleurs de la santé et de l'action sociale décrète ce jeudi une grève générale, une journée sans blouse blanche. Le collectif fustige la démarche des autorités dans l'affaire Astou Sorna, une démarche qui expose le personnel de santé victime de lynchage médiatique. Les syndicats exigent